caay caay caay caay caay on est là ici ñu ngi suñu feem fii mooy Grand Yoff fii la Khalifa Sall fekk baax waaye fii la Khalifa Sall dëkk e man di wax ak yow sax fii laa dëkk e dëkk fii la neexee Issa Richard Toll la jóge ñëw na neewoon naa leen Khalifa Sall dernier moment day wane boppam e Richard ñun ñëw fii Grand Yoff suñu fief la fii man yi fi mën a jar a jëm Sall Baba ma day raxu ñu dem dañuy dem suñu ala yàlla guus nag ah Khalifa Khalifa waxoon naa leen ko kii mooy Grand nee na ci dox leen de moo wóor ne woon naa leen dernier moment Khalifa Sall day ne war naa ne lii du course de vitesse lii course de marathon la jël leen seen temps gars yi di accélérer la cadence leen jël leen seen temps lii du course de vitesse course de marathon la ne war naa leen dernière heure Khalifa Ababacar Sall day wane boppam dernière seconde dernière vitesse bi day génn bu génnee Ndakaaru xam ne am na ku ko moom. naa la ko ne woon naa bi heure ambiance la mais newoon naa la dernière heure newoon naa la dernier moment Khalifa Ababacar Sall moo ko moom carte gi day blanché wu a gauche wala mu blanché wu a droite waxoon naa la ko newoon naa la mbir mi du course de vitesse newoon naa la mbir mi course de marathon la Khalifa Ababacar Sall dugg nañ fi nga xamante ni mooy feefam dugg nañ fi nga xamante ni fii la Khalifa Ababacar Sall yaroo waaye fii la fekk baax ba baax fekk ko fi Khalifa Ababacar Sall nee naa leen mooy borom Grand Yoff ne woon naa leen mooy borom zone 7B naa leen mooy borom Dakaru ne woon naa leen nekk na maire Dakar ñaari yoon ne naa la moo simple maire Dakar dénk ki nga xamante ni mooy sunu yaay Soham Wardini booy Khalifa yi nee nañ dañuy bañ nee nañ affaire bi Khalifa la fii 100 pour cent ngay dégg 100 pour cent ngay dégg fii Khalifa la Grand Yoff Khalifa moo ko moom zone 7 bi xalifa moo ko moom ndakaaru précisément xalifa Ababacar Sall moo ko moom Sénégal Sénégal allah nga ne nga ne suñu fief suñu fief Grand Yoff lañ nekk ñoo ko moom Grand Yoff bilaay walaay dégg nga nee na Grand Yoff lañ nekk Grand Yoff xalifa Ababacar Sall moo ko moom kon carte yi leer na waa Grand Yoff duma leen ne génn leen ndax génn ngeen ba noppi duma leen ne tertu leen seen doom ndax tertu ngeen ko ba noppi waaye aujourd'hui Grand Yoff di oui mais Grand Yoff aussi Grand Yoff Khalifa Sall tax fii mbedd mii ñuy jaayee am na mbedd yoo xam ne duñ nangu ko fa jaay parce que Khalifa lu mu bon bon bàyyi nañu ñu ngi tedd te Khalifa Sall ku baax la bëgg na doomi Grand Yoff fonk nañu jox nañu teel bàyyi nañu ñuy liggéey dañuy liggéey ñun jigéen 6 heures du matin la ñuy xëy minuit la ñuy wàcc te mi ngi ñu bàyyi si mbedd mi fay ñu juute fay ñu dara yërëm nañu bàyyi nañu ñuy liggéey kon Khalifa rek la ñuy suba 6 heures du matin dimanche ma dem wooteel Khalifa école Mol Fall école Mol Fall 6 heures jox Khalifa Sall sama carte ndax lu am Grand Yoff laa ko amee bu ma dugal TikTok nag. ci ku ngeen ma woo. ci Sall Baba Maar. kooku moom ko mu mokk gaye mi nga xamante bi mooy jabaru Khalifa Sall sama doomu nijaay la man maa jël ay sagaru njaay ma ñun dañuy taali cuuraay pale bu sooba yàlla ak yonent bi dañuy taali cuuraay pale booy xale yi nga xamante ni euh, incha allahu rabbi ñoo war a voté du 24 ginnaaw suba incha allah nañ dem jëli carte yi rek jëli leen seeni carte denc ko xool nag bu baax na xool jël seeni carte xam fi ngeen koy dugal ndax pétrole baa ngi ñëw te yéen ko waree jariñoo ah ñun ay mag lañu rek suñuy wàll way na pétrole bi nag yéen a ko war a jëriñoo wecc xool bu baax fi ngeen teg seen carte Sall Baba Baar ñoo ngi nii doxalal doxalal doxalal. jërëjëf sunu yaay ji comme niñ ko déggee. et eh, témoignage yi ñu nga continuer ba tey fii nga xamante ni mooy Grand Yoff waaye li ma leen waxoon rek ba tey du ñu bàyyi ba tey du ñu sonn ndax ki nga xamante ni mooy le président Khalifa Ababacar Sall fii la fekk baax ba baax fekk ko fi newoon naa leen Khalifa Ababacar Sall mooy borom Ndakaaru newoon naa leen Khalifa Ababacar Sall mooy borom Sénégal newoon naa leen Khalifa Ababacar Sall mooy le candidat idéal newoon leen dernière heure lay wone boppam dernière heure lay génnee dernière butéel bi lii leer na ni Ndakaaru daa am borom moom moo ko dénkoon ki nga xamante ni mooy mooy sunu maman Soham Wardini moom moo ko dénkaat ki nga xamante ni mooy la maire Barthel Barthélemy Toye Dias waaye nag Khalifa Ababacar Sall mooy borom Dakar mooy borom zone 7 waaye mooy borom Sénégal lii leer na lii rafet na xoolal Amazone yi xoolal Amazone yi nee nañ cinquième président Khalifa Ababacar Sall lii rey na lii rëy na lii Khalifa Ababacar Sall rek ko mën lan ngay wax waaw Abdou Diéli xalifa lañ bëgg moom lañ topp moom lañ fas yéene jox sunu réew moom lañ yaakaar réew boo koy jox da nga koy jox kilifa jox ko mag ku am expérience nga koy jox doo jël xale bu ndaw moom lañ doy cinquième président mu dugg palais grand F neex. man xanaa rek di ci ay kàddu rek yu rafet parce que ñun sénégalais lañu ay jeunes lañu te élection yi élection jeune la te kat Xalifa Ababacar Sall koo xool xam ne mooy candidat wu jeunes yi dañu bàyyi xel suñu lu wax waaw bu nga jël réew mi def ko affaire la Samba yi bàcc moom loolu moom beneen affaire la réew du ay caaxaan. ok rafetlu nañ kàddu yooyu nga xamante ni jeunesse bi seen gis-gis waaye Amazone yi fi ngeen génn tey nee naa leen doyati na waar chaque jour ngeen génnee feem bu bees chaque jour ngeen génnee slogan bu bees ñii ñoo bëgg Khalifa Ababacar Sall ñii ñooy topp Khalifa Ababacar Sall nee naa leen booy voté da ngay xool koo xamante ni mat na ko booy voté da ngay xool koo xamante ni mën na ko booy voté da ngay xool koo xamante ni maîtriser na ko waaye booy voté da ngay koo xamante ni garmi la maîtriser na li muy def xam na li muy def ndaysaan ma bàyyi leen ngeen dund ambiance bi ak amasaanu Khalifa Babacar Sall ngeen ne la namasoni ngeen émotion bi nga xamante ni moom la Amazone yi di dégager gis ngeen chaleur bi nga xamante ni Amazone yi moom la ñuy dégager moom la ñuy dégager fii nga xamante ni mooy Grand Yoff nekk ci kaw tali bi di dox di waxtaan di dox di bégee di dox di dund kon nag ndeysaan Amazone yee ngi noonu rafet na nii la ñu tertoo Khalifa Ababacar Sall fii ci Grand Yoff waaye nii la ñu dalalee Khalifa Ababacar Sall ci feefam fi nga xamante ni mooy zone 7B lii rafet na lii rafet na ndaysaan ku wax lii wax la ca ku wax lii wax la ca ku wax lii wax lee ku wax lii wax loolu waaye kenn du Khalifa Ababacar Sall Grand Yoff génn na Grand a di wii Grand na waaw ki nga xamante ne mooy Khalifa Ababacar Sall Amazone yi wane nañ seen féete wane nañu fi leen Khalifa Ababacar Sall toll wane nañu bëgg gi ñu bëgg président waaye xale xam ko ci liggéey am yaakaar ci moom xam ko ci yar xam ko ci teggin xam ko ci bëgg réew wi xam ko ci respecté mag waaye am war ma ci ñi nga xamante ni ñooy suñuy kilifa diine ak suñuy kilifa aada muy ci côté julit muy ci côté catholique kon donc kenn du Khalifa Ababacar Sall Sall Baba ak Maar kenn du yow. ambiance ambiance ambiance ambiance ambiance ambiance Khalifa Ababacar Sall kenn du Khalifa Ababacar Sall ci mim réew je vous l'avais dit di mën a ki kay jéem bokkul attention attention c'est du jamais vu kenn mës koo gis ci mim réew leen ko waxoon naa leen ko kenn du Khalifa Sall waxoon naa leen ko kenn du moom kenn du président chéri je t'aime kenn du président Khalifa Ababacar Sall moo lii nee naa ko yaa mën ciw mën caa ah. kenn du yow génnal nga dugg fële génnal génnal ndeysaan ku xool xale yu góor yi xool jigéen ñi xam ne dañoo am yaakaar soxna si Amazone bi yow la ngay wax tey. waaw waaw kontaan te laa am dama kontaan instant yii génne nañ ba pare premier tour ñoo ko moom barke sëñ Touba yal na Khalifa Ndiaye sa nekk na ko may ndam barke Seydina Mohamed. waaw lu waay waxoon na sa dellu dimanche dañu ko déglu dama yomb réew. eh eh waaye spécial ambiance si biir Grand Yoff ak ndawu Khalifa Ababacar Sall yi ma leen ne woon naa leen dernière minute ñoo ko moom ne woon naa leen dernière minute Khalifa Ababacar Sall moo ko moom dernière heure Khalifa Ababacar Sall moo ko moom waxoon naa la ko waxoon ko waxoon ko Ndeysaan waxoon naa la ko je vous l'avais dit je vous l'avais dit nee naa la da def waxoon naa leen ko kenn du Khalifa Ababacar Sall spécial ambiance spécial nuit de clôture Khalifa Sall du ci moroomu kenn Khalifa rek Khalifa rek waaw waaw xalifa rek Dubaay rek dem Dubaay la xalifa tàllamp yi lii bari na xalifa rekk la xale yi wax muy góor muy jigéen newoon naa leen ku ko mën ak ku koy jéem bokkul newoon naa leen nante yeeg ngaa kay dañ leen di xàmbee dernière minute dafa am ñoo xamante ne dañ leen di nelawal du ñu comprendre du ñu gis sax li ñu gis du ñu gëm sax li ñuy gis ndeysaan xoolal xoolal soda xoolal ñëm rita xoolal amazone yi xoolal amazone yi ndeysaan ñi dañoo pare ñi dañoo pare ñi dañoo pare démb tey soog a ñëw nga ne nga naan am ñi la ñëwee ñi la Khalifa Ababacar Sall yi dugg see Grand Yoff ma borom doole bi ñëw na déggoo ma de lii ku ko gis sama waa ji waaye leen Khalifa daa mën dernière heure dégguloo la mooy secret bi secret bi du xam nga wax ji lan la lambi ñu rëy dañoo mën di teel a wax xalifa nee na nañ moytu di teel a wax di am dëgg wóorul dañ koo wëree wuy ma wuy ma le 24 la lépp di leer. mais Bisinti doomu ndey xalifa Sall doomu xalifa Sall looy wax tey. waaye dama kontaan Abdou dama mbég mbégte laa àndal tey maa sama taawat grand frère fa reven xalifa Sall sera le petit président du Sénégal incha allah incha fa am. la wax waa grand F sa koñ. naaj grave naaj ñëpp a kontaan Abdou dama bëgg Bira je suis fier je suis fier je suis fier da ngay xalifis Abdou suñu papa la suñu moo ñu yar moo ñu wàcc bañ toll nii liñ ko defalee nii dañ ko war a defal Abdou Khalifa Sall da amoo xoolal desaluñ dara bilaay walaay dañ ko war a jàppale waaw dañ ko war a dimbale war ko jàppale waaw. ah waaw li may wax lenn kese mooy maanaam. maanaam jeunesse Sénégal laa waxal man lii neex na trop mais nañ bàyyi xel ku ko mën ak ku koy jéem bokkul koo xam ne danaan la jox ma xaaj jox ma dëkk bi tey ma liggéey ko suba bokkul ak naan ma jox ma dëkk bi ma jàng nañu waxante dëgg booy bëgg da ngay bëgg ki nga bëgg mais booy fal faral ku ko mën loolu baa Baba Gueye di wax te loolu moo am bilaay walaay gan gi da koo mën dasee see yàgg te dafa am yëwen xam nga dafa baax comprend nga yërëm askanam bilaay walaay xoolal kii yoon la mu yor dëkk bi te bu ko yoree day jëm kanam man gëm naa loolu xoolal wu ñaari mandat ñetti mandat benn rek mu wan leen yoon bi kese. billaay kon noonu la ñuy def yow ma caméraman topp ma Grand Yoff nee la tey Grand Yoff buus Grand Yoff day yëngu Grand Yoff day yëngu ndax borom Grand Yoff moo ñëw ki nga xamante ni mooy Khalifa Ababacar Sall neew naa leen ki ko mooy jëm bokkul ne woon naa leen dafa am ñoo xamante ni mën nañ commencé mais mënuñu eggale kenn du Khalifa Ababacar Sall xool ko ci kaw oto bi mi ngi tàllal loxo waa Grand mi ngi nuyonteeg waa Grand kontaan naa di yéen. Zano. Abdou Diéli. Zano lu la bégloo. Abdou Diéli sama papa la ko gis kontaan yàlla ko yàlla may ndam Abdou Diéli bu dimanche. Abdou Diéli sama papa la ko bëgg sama xol Abdou Diéli. bu la xam sax yàlla ko yàlla. kon léegi naan la foo toll. Abdou Diéli yàlla ko yàlla may ndam Abdou Diéli. wóor na yàlla Abdou Diéli yàlla ko yàlla may ndam Abdou Diéli. barke yàlla. xaw ma gàncax gi. dëgg la c'est l'émotion. c'est l'émotion. yàlla ko yàlla may naan jëli. sama njaago. ma xam ne wóor na yàlla ko bëgg na xool. dëgg la sax ñun xoolal moom rek la ñuy topp nga naan lan. ñun moom rek la ñuy topp. ku am sa beneen leader na nga ko téye Khalifa rek la ñuy topp. amul ragal amul dara. ku am sa leader na nga ko téye. barke alxuraan ñun Khalifa rek la ñuy topp doomu Ndakaaru. barke alxuraan si Khalifa laa koy féetee. lu mu guddi guddi. maa koy féetewoo moom rek la ñuy toog fidélité la ndeysaan nee naa la gars yi dañoo fidèle ci seen leader le président Khalifa Ababacar Sall le cinquième président de la République du Sénégal Grand Yoff nee na yow Grand Yoff nee na yow la na yow la Khalifa Sall la ñu wax Khalifa Sall la ñu wax. incha allah dañuy féete suñu cinquième président de la République muy Khalifa Ababacar Sall. incha allah incha allah rabbi. Sénégal yëpp nañ jóg voté ko moo fi ne. dafa am bilan posé ko osé moo tax mu mën ko wax sénégalais yëpp. incha allah rabbi cinquième président Khalifa Ababacar Sall incha allah. ah xanaa di kontaan sama nijaay bi yal na ko yàlla may ndam mu jëm ci kaw sa kanam. dégg ngeen le maire de Grand Yoff le maire de la zone 7B il est là c'est monsieur Pape Madiop Diop. bi nga xamante ni papa la def Khalifa Ababacar tonton la def Khalifa Ababacar Sall mag la def Khalifa Ababacar Sall mais partout référence la def Khalifa Ababacar Sall di ko roy di ko topp lu mu wax loolu la wax Bamba Diop a ngi noonu mi ngi dugg ci biir oto bi Bamba Diop a ngi dugg ci biir oto bi Bamba Diop a ngi dugg ci biir oto bi Bamba Diop yéeg na mi ngi noonu ci wetu idolam mi ngi noonu ci wetu idolam ki nga xamante ni moo ko def maire deux fois taalal na ko loxo jox ko ko nee na ko merci nee na ko dalal naa la ci dëkk bi nga xamante ni ñoo ko bokk yaa ma def maire lu ma am yow la yaa ma def li ma doon sant naa la gërëm naa la nee na ko sant naa la gërëm naa la nee na ko lu ma am yow la lu ma am yow la lu ma am fii yow la yaa ma ko defal yow laay delloowaat lépp Khalifa Ababacar Sall ndeysaan mi ngi noonu Bamba Diop sol lu weex tàll Khalifa baa Sall sol lu weex tàll dox dugg biir Grand Yoff bi looy wax. Khalifa rek la ñuy wax intellectuel baa ngi nii borom xam-xam baa ngi nii ay borom xam-xam baa ngi nii wala eh, euh, rek la ñuy on va gagner ces élections on va les battre en tous on va les battre Khalifa du seen morom c'est un homme d'État moo leen dàq politique moo leen gën a xam Sénégal. tonton la. Khalifa Sall du bokk élection yu muy perte élection bu bokkul rek parce que waru ko gagné lépp lu bokk da koy gagné élection yëpp lay gagné ba pare borom dëkk bi borom Ndakaaru borom dëkk bi. waa ndeysaan ñoo ko déggandoo waaye tamit ñoo ko gisandoo. mbégte la ñu àndal mbégte tey grave moo xewle ak Dakar ak Sénégal dañoo bëgg Khalifa doon cinquième président wu Sénégal grave mel na feneen ak feneen bilay walay kon ndaw yi tey dañoo kontaan bépp ndaw yi tey dañoo kontaan. kase. Grave kase kase.